Mbacké Thiès Ziguinchor ak yeneen nga xamante ne kon Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñoo fa teg loxo le mandat mi gis ni luy xeeñ cohabitation la enquête naka noone di ko dëggal gis ni li ñuy séentu moom cohabitation la ci assemblée nationale bu ñu sukkandekoo ci tendance yu njëkk yi ñu fësal Benno Bokk Yaakaar li mu doon am boob ak léegi di majorité absolue moom boo moyul dina ko ñàkk ci assemblée nationale suñu naataango yi di fësal yenn gox yi nga xamante ne opposition bi dafa dal ci kaw pouvoir bokk na ci kon Dakar Thiès Ziguinchor Kaolack Mbacké Bambey ak yeneen waaye ci beneen fànn ba tamit enquête di fësal ba tey ni yenn gox yu ci mel ni Matam Linguère kafrin Dagana Fatick waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ca dëggal seen bopp tribune yéenekaay moom li muy dëggal mooy gulat war nañoo dund cohabitation ci Sénégal Walf Quotidien di ko ci fellu ne luy xeeñ moom neexul benn yoon ci Benno Bokk Yaakaar suñu naataango yi di fësal ni Yewwi moom ci gox yu bëri ñoo fay buur di bu mi waaye boo xoolee Benno Bokk Yaakaar moom gox yi gën a sori ak yenn dëkk yi ñoom sànq ci Walf Quotidien ñu ñuy xamal ni Mimi Touré moom nga xamante ne mooy tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo dagg bopp ba ca Kaolack Assom ñu daal di koy doggali ca Kër ma Massar Mansour fay ñu daal di koy labloo ca waa Waaxub Saint-Louis Moustapha Diop tamit daanaka dañu ko mënate ca Louga Bamba Fall moom askanu Médina dañ ko wan ni ànduñu ci transhumance leneen li Walf Quotidien di jàngat ci wat bi mooy PDS ci boppam dafa mel ni dafa dellu siyaat ak doole Direct News doole PDS tamit la gis moo tax mu jàpp ni maître Abdoulaye Wade jamono ji dafa mel ni wuute ak Macky Sall mi bis bi di jàngat ni taxawaayam dëgërul benn yoon jamono ji ndax li ñu gis ci tendance yu njëkk yi ci biir yéene kaay groupe E-Media bi daal ñu ngay lim responsable APR yi nga xamante ne seen bakkan daanaka ci xottu gerte la nekk ci wàllu politique bokk na ci Mimi Touré amadu Ba ak ku ci mel ni Diouf Sarr nga xamante ne ñoom ñëpp li ñu wane ci élection yi boo moytul ñu rëkk seen ndigg bennoo mi ñu rëkk ndigam ci gox yu bëri le quotidien le quotidien gis ni kon ñoom ñoo nekk sax ci guddi gu bër setugul jamono ji l'observateur moom li mu jàngat ci résultat yi nga xamante xamante ne moom la ñu fësal ni ki démb mooy bolo bi nga xamante ne yeewi askan wi ak wàllu def nañ ko moo indil dëgg jafe-jafe ñi féetee ci nguur gi 24 heures ni mu tënkee ne élection yi tëddee nag ni ki démb mooy askan wi ci boppam ñoom ñoo delluwaat ci assemblée nationale Sud Quotidien li mu gis mooy yeewi wane na boppam ci gox yu bëri waaye bennoo dafa mel ni ma ngay dëgëral ba léegi Dakar Times moom yamul ci dëgëral gi ndax kàddu Mimi Touré la fësal ci xëtam bu njëkk moom tête de liste Benno Bokk Yaakaar bi di xam ne ni ñoom ñoo am majorité bu ñu sukkandikoo ci résultat yu njëkk yi sax libération tàmbale ci xëccoo bi nga xamante ne daanaka judd na diggante benn Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ku ci nekk ak di wane li nga am ku nekk di ràcc jëmale sa bor moo tax Vox Populi njort ni ci ay waxtu wala fan yu ñu dégmal moom ci contentieux électoral bu métti la Sénégal war a soobu ak li ci mënta am le vrai journal moom dafa gis ni li ñu mën a jàngat ci élection législative yi bëri na bokk na ci askan wi ci boppam ñoom ñoo àndatul ci jox doole gu bëree bëri président la république waaye géopolitique bi ci boppam amaat ni mu bindoo rax ci dooli moom troisième mandat moom njiitu réew mi Macky Sall daf ko war a teg ci suuf beneen jàngat bi ba tey ci le vrai journal mooy transhumance moom amul dara li mu indil njiitu réew mi Macky Sall waaye lii yëpp bu mu tax ñu fàtte élection bi ci boppam naka la amee réew mi quotidien dikkaat ci li nga xamante ne moom lañ ci mën a jàngat ci bisu vote bi muy askan wu bëri wi nga xamante ne dañoo xëy banque seen loxo lànk duñu wote ji waaye tamit ci biir vote bi daanaka li ñu nemeeku ci gàk-gàk wala li ñu doon jot sax ci wàllu fitna loolu yëpp kon amu ci Sadio Mané am ndamam bu njëkk ci Bayern